biir barrières yi c'était pas aussi vulgarisé. tout à fait xam nga feebar bi ñun ñëpp dañ koy jàng y compris réew yu développé yi parce que ñu bari xamuñ woon lu bari dañ ciy jàng rek tey président li mu wax am na solo dem nañ ba xam ne bu ñu bëggee toog xaar virus du am Sénégal pour ñu liggéey du sotti bu boobaa nit ñi du ndeewul ci virus dee ci leneen. Mhm. waaw beneen beneen beneen laaj bi mooy euh, restaurant yi clairement lan lañ ci wax restaurant yi. waa restaurant maanaam xam nga tous les secteurs de l' économie li ñuy jéem a xool rek naka lañ koy def lenn luñ ciy dem lu ne li ñu président wax mooy nañu waxtaan ak acteurs yi. Mhm. li am solo mooy nañ fexe ba bu mu doon lieu de propagation. peut-être du ñàkk xam nga fii sax ñun dans restaurant yi am wute naa ci yenn restaurant yi am ci yenn réew Afrique nga xam ne day bëri mbooloo. Mhm. donc yooyu yëpp lu ñuy organiser la rek. Mhm. il faut ñu organiser bu ñu koy organiser jàpp naa ne kenn ku ci nekk bu ci defee dara ci moom. dana tax ñu mën a reprendre suñu économie ndànk-ndànk. Hmm. waaye ñu respecté dispositions yi parce que nag là aussi li may préciser mooy euh, danañ gën a lay euh, mettre des forces pour que dispositions yi nga xam ne wax nañ ko mooy maanaam euh, mesure barrière yeeg masque yeeg distanciation sociale aussi ñu koy appliquer. Hmm. <laughs> Euh, beneen laaj bi euh, monsieur le ministre mooy euh, ci wàllu transport interurbain bi gis nañu ne foofu ba léegi donc ubbe guñ ko mais ci enseignants yi nga xamante ni dañoo war a reprendre le 2 juin kon nan la ñuy def ñoom. waaw loolu moom danañ trouver solution parce que xam nga ñooñu déjà xam nañ leen te xam nañ fu ñu ne. Hmm. am na lu gënoon a compliqué. parce que bu weer bi xam nga bi président waxee ne enseignants yi ne arrêté nañ école bi. Hmm. jàngalekat yu bëri ñoo ñibbi Hmm. ñu bëri dëkkun dëkkun ci dëkk yu mag yi. Hmm. waaye bi weer dee trouvé nañ solution pour que ñu dem fayoo ko ci parce que ñu bëri fan dëkk amul banque. Hmm. donc lu mel noonu la ñuy jël dégg nga président ne ñi nga xam ne ñii dañoo nekk ci dëkk bi. tey nooraat ñi nga xam ne ñi tey dañoo nekk ay chauffeurs yoo xam ne dañoo bloqué partout ci biir Sénégal. ndax couvre-feu fekk leen fa. au fur et à mesure dañuy jël ay dispositions pour pour wax la ñuy yëw fan yii passé am na chauffeurs yu jogee ci yenn dal di ñibbi ci organisation boo xam ne def nañ ko gouverneur bi ànd ceeg ñoom ñu dépisté leen testé leen amul dara jotu leen ñu bàyyi leen ñu ñibbi seen kër parce que mooy mooy leen di protéger mooy protéger ñeneen travailleurs yi aussi yi nga xam ne dañu war a dem feneen bu ne yàlla dañ ko jox parce que même bu du doon lii Korité gi souvent day nekk enjeu bu am solo parce que nit ñi souvent dañuy ñibbi mhm. ci ci ci mhm. justement Korité googu tamit euh, nan lañ ci nar a def parce que euh, lim bi nga xamante ni euh, moom nga wax buñ ko buñ ci d'accord tuuti na trop ci ni ji ñoom ñoo war a dem julli korité. déet julli korité c'est pas forcément dem ci jumaa ji. Mhm. <laughs> julli korité d'abord dem ci sa waaw. waaw ah, mais ah, mais pour dem ci jàkka ja ni Sénégalais yu bari dañuy dem julli ji korité monsieur le ministre li ci ëpp d'abord du ci jàkka lañ koy defee. julli korité bari na ci dëkk yu bari ci bayal lañ koy defee rek. mais c'est des rassemblements voilà. non oh, mais bayal la bu ñu respecté distanciation sociale yi xam nga rassemblement bu respecté distanciation sociale. wax dëgg yàlla ci wàllu mathématicien sax jafewul. Mhm. benn surface la rek booy booy booy méngale <laughs> waaw. baax na ñu ngi lay jaajëfal monsieur le ministre euh, Aly Ngouille njaay am na itam benn laaj euh, ba balaa ngay dem mooy wàllu luuma yi am na ñu ñuy dégg ñu ñuy seetaan fële euh, ci ci ci ci dëkk yi ci de ci village yi bëgg nañ ci am tamit lu lu gën a leer nan lañ ko nar a waaw loolu loolu aussi ñu ngi ciy liggéey depuis depuis. daanaka sax mooy boo ne deux à trois semaines rawatina luuma yi jëm ci wàllu élevage. Mhm. mais parce que li ci ëpp lépp ci luuma yi kenn ko ne xam na mooy li ma wax léegi nii euh, souvent seen organisation euh, tamit dañ ci ànd di cette fois-ci avec les autorités le plus souvent c'est les préfets. Hmm. parce que ñoo koy ñoo koy autorisé ak les différents maires yi nga xam ne yii fa la fa affaire yi nekk. parce hmm. que Euh, ñoom aussi li ñuy def dafa am solo par rapport ak collectivité yenn ne waaye dès l'instant que déjà euh, ubbiwuñu transport interurbain bi. Mhm. luuma dana am naam. waaye du mel ni luuma yi daan am. Mhm. nga xam ne bii amutoon limitation. parce que mhm. bu njëkk da ngay jël benn exemple rek su fekkee luuma dafa am fu mel ni fu mel ni Daara Jolof muy luuma bu mag wala jawbe di luuma bu mag. fu nekk la nit daan jógee di yëngu luuma bi cette du mën a am. dana peut-être que départ moo tax président ne nañ limité ci département yi man am na fu muy demee sax du sax yegg ci département bi ndax tant que dindiwuñ euh, limitation circulation interurbaine bi mën na bañ yegg ci département bi donc lu may dana reprendre mais du am envergure ba mu daan am. très bien très bien ñu ngi lay jaajëfal monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye. merci beaucoup